Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju mi ak ci corps lui a parlé. C'est sûr, son corps lui a parlé. Non, son corps lui a parlé avant ça. il faut que nous apprenions à être. mais ñi nga xamante ne maanaam ñoom daa war na Sénégal. waa Bignona kontaan nañ Casamance ñëpp kontaan nañ jeunesse bi ñëpp kontaan ñaani yàlla na yàlla na ko président yi daal super en forme <laughs> on est content on est vraiment content émotion bi la waaw on est content mais mais ça man man dama bëgg dem euh, ñu añ tout ça parce ah, que yaa ngi koy gis kii bi euh, il faut qu'on se repose. il faut qu'on se repose. waaw waaw waaw waaw waaw macha allah waaw waaw on a fait un excellent événement. waaw. dama gis déjà dans la presse. non Sall Sall bu ñu <laughs> Mais en fait, tu sais c'est quoi euh, Les patriotes, ils sont invincibles. Les patriotes, ils tiennent debout. Les patriotes, ils sont forts. C'est ça que ça signifie. Rien ne vient à bout des patriotes. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. lan lay servir quoi. à quoi ressemble le paradis hein. ah oui bon. salaamaaleykum gërëm ci gàtt seen i réaction lay dalal ñu ci jàmm ci yàlla jàmm bu bëri émotion la émotion bu bëree bëri ndax euh, amaana lu yàgg tee la amee ba léegi lu yàgg refoulé la tey wax dëgg yàlla ñu taxawee bi ñoom xool photo xale yi xool seen way bëgg na ko yëgal émission boobu la doon ñëw waaye nag ñi ngi dara ñëpp ñu ngi très bonne forme di waaj a nekk suñu musique bu ànd ak Kouthia xam nga Sénégal xam nañ musique bu ànd ak Kouthia euh, gërëm ñëpp nag seen euh, ngeen yëngatoo ci mbir mi waaye daal seen xarit ñu si jàmm bu baax a baax a baax émotion bu bëree bëri ñu jàmm lu jaadu ndax li a jaar bëri na yàlla defoon na rek ñu nekk au cœur de l'affaire boobu ñu koy téye bu ñëwee ba fii nag kilifa yi yëpp daje discours yi témoignage yi ñaan yi am na fu bëri fu mu yóbbu yàlla daal yàlla doon mujjanteel lu mel nii fii ci biir Sénégal. amiin ñu leen gërëm di leen sant di leen invité nag ci suñu ak bi. merci. donc la famille. waaw. la eh. famille incluse nous donc nekk leen kon nekk leen ñun ñoo ngi nekk Ouma Cissé Non, non, Je